bu ndaw nante la yow xam nga ne man du ma daw ci ginnaaw mbër man boo dëggu damay teel a arrière damay xam jëm ji mais ñaaw ndaw bu ma ko xamee ba léegi maanaam bëgg bi ma bëgg ak ñu ma yéenee ma oublier si làmb kon tey ñaaw bu ndaw fu mu toll nii da koo liggéey de di war a na ko géejawaay bi ñëpp génn di ko jàppale. ndax dañoo war a jug buñ jógoon du demee nii. Bou Siteu da nga doon koo xam ci ni

non waay waay waay war nga war nga xoolaat waay ci communication kenn muusul dégg Bou Siteu ñëw stade coow man CNG kenn muusuma faa woo di ma di ma di ma kii. di ma yedd mais Bou Siteu nga jàpp ko aj ko 6 mois si ay loo xamante ni nii ay CNG dañ maa tagg ba mu des 6 000 mais mbër bu mag yaa ngi dafay toog di yàq CNG lu ñaaw te lii musul am mais ma wax loo xam ne pour slogan ñu jàpp ma ci aj ma ci 6 mois ku si mel ni euh, commanda commanda nekk nit ku baax nekk suma papa joo xam te ni biir CNG suñ ma tegaloon gars yi man la père mu ñàmbe ak max ñoo ma gën a bëgg biir CNG su suñ ma tegaloon boog ñooñu laay wax mais ñooñu xam nañu Bou Siteu day neexal stade mais aj Bou Siteu 6 mois si ay CNG dañ maa dagg ba mu des six mille yow gis nga gars yi di ko TikTok gis dugg nga si TikTok gis gars yi di TikTok waaw kafoore la. kon demee noonu. non warul demee noonu. kon appel ngay lancé CNG. appel bu may lancé sama papa nag laa koy teg commanda. commanda Thioune loolu ci loxoom laa koy teg ne ko na ma gars yi baal. nga mais man su ma manqué si stade bi du neex. mais bu bëggoon naa leen nag wax ban booy laa bëgg a jël a su muy ñëwaat ci laam. ban booy si def code. mais bu mais nañ ma baal ma def si code. mais ba dama waa baari baari. waa baari baari. ah. ndax combat mafia la combat nante la. mafia géej waay maanaam xam nga yow muusoo dégg. xam nga muusoo dégg ma tout tox. du tudd mbër mais booy boobu day neexal làmb comme Bou Siteu mais boole leen ñaar ñooñu waay waay waay doomu nday Bamba Fall dañ koy saltala ne ko ay loxo yu tilim yu savaas. Ah. mais léegi ay loxo yu set nga nekk. mais bu mais bu ñëwoon bi ma defoon leen kii lu muy wax. social bi nga ñëwoon keroog bu ñëw ci. ndaxte àdduna bi yëpp si bëri nañu gis tout lu muy bégal Sénégalais yi mais teewul yaa ngi bàyyi xel dina ci prison yi. waaw loolu rek sant la. Uh-huh. dafa saga nga nekk Bou Siteu di bégal Sénégal su ma neexoon topp sama bës ah. parce que yow xam nga ni façon succès façon succès bu ne am naa ko international mais coronavirus bi ah. bu la dalee faatu nga yàllaaw kan moo ko fi waxoon mais bu social bi nga waxoon social bi ngay def kan moo nekk sa ginnaaw wala yaa koy def sa propre moyen waaw ku xam social xam ne social métti na bisuma nga ne prisonnier nekkul samay nit le maa dama ko fa dugal ñi nga xam ne suñu ñoom sax dama ne leen gaa lii bu ñëwee yéen sax bu dugg seen gémmañ parce que ñoom seen ndaw iso ba léegi lekk yi duggul seen maanaam képp kuy taxaw naan waaye yow déggal kii yóbbu woon ma Radisson iPhone 15 du ma ko laal barke alxuraanu kari ki ma ko wax du waxantu borom jaab pro events donc ñëpp ko xam si réew mi te du xam nga ko gis nga jaab pro events jaaykatu iPhone te salle de vente mercredi bii nii nii bu la neexee ñu ànd yéen internet may ma iPhone 15 léegi sénégalais ak jeunesse bi léegi am nga écran plat am iPhone 15 yàlla def waa waa Simtek may ma écran muy maanaam semence rek bu bëri ci Sénégal te ñu duñ ko wax xam nga waaw semence bi métti na yërëm jeunesse bi xam ñaan Sénégal yàlla gën a xoolal xoolal buusi na nu yi looy reere moom ay ay bërigo dégg nga burger ay burger pizza. Eh, waaye sama jabar maa opposé ak si ma nekk. mais da ngaa yor oto. sax yi ndeysaan moto bi laay ànd ak suma doom day laay ñoo waaw oto lañ ma may ku si mel ni Saliou Mbaye boo xam yow xam nga ni man Boussita man du ma taxaw di tagg nit si loo ma defal xam nga ni Boussita koo defal lu wax mu wax ko mais Saliou Mbaye may na ma oto mais mënu ma dawal moo tax ñii ñi duñ gis oto bi mënu ma dawal wiiri moo booy laa mënul Saliou Mbaye may na ma oto jaaykatu Ford la lu mu jaay ci Ford baaxul Saliou Mbaye. jaay tombeek doomu nit bëggaale ma xoolal lii ma la wax. kon ni ko roguwaar gi rek da koo bàyyi. yaay xam rek jabara bi dégg may jàmbar oto jëkkëram nekk jaaykatu ford mais xoolal soxna soosu mais madame Mbaye yàlla la yàlla dafa jàmm mais xoolal soxna kilifa yi bii ma lay wax. mu a ko mais yow buum mi mu ngi jàmbar oto rek sama doom yi dañ ko bëgg bay jooy ay doomam bëgg ma bay jooy. seen papa ne ma léegi mooy na